kóllëre gi yàgg na macha allah ñu gis ne waaw waaw ndeysaan feddali li nga xamante ni mooy sa diggante ak Cheikh Sidi Mokhtar ku la fi gis dina xam waaw fi dox bu baax a baax waaw jërë ngeen jëf dañoo ñëwoon rek di feddali kóllëre gi ñëw di yeeslu tànk yi ñu fi daan dox démb ak bërki démb ci sëriñ bi te xam ne it jógu fi benn yoon xam ne fu ñuy tudd dayoo ci nitu yàlla wala wàllu suñu borom defoon na ko ci moom ci kàttanu Serigne Bara Baye ci lu ñu xam ci lu ñu dund ak moom kon wóor nañu ne buntu kër gi ko fi teg sa tànk moom mi ngi ciy teg bët. kon nag loolu dañu ñëwoon di ko feddali nii sëñ Moussa defit ñu ñëwoon di ko ci sant ndax nee naa ko léegi boo toogoon Touba yóbbu 200 personnes mag ñëw Dakar yóbbu fukk. day tax fukk yooyu nga yóbbu ci ndakaaru ci ngay gën a jot mbootum sëñ si di Maxtaar ndax na mu daan defee nga ko defee te lii feddliwaat na lu bari moom it mu ñëw tey bokk na ci tànk yi nga xam ne la njëkk a jóg ñëw ci liggéey bi kon nag ñuy soññ suñu bopp rek di soññ mbokki taalibe yi doxin wi ak pastif bi nga xam ne moo nekkoon ci ñun démb ak bërki démb ñu ko daa ànd ak sëñ bi di ko dox ci sow bi nañu takkatoo rek te nekkat ci liggéey boobu te xam ne moom jógu fi benn yoon jàpp nañ ne rek ne moom mi ngi ci biir néeg bi fattu nun noo ci bunt bi rek ba tey kon nag lu fi waay def rek sa bopp rek nga ko defal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. ci mel nii wax nga ko biir biiri wax waaye day mel ni Cheikh Sidi Moukhtar moo jëfal lislaam loo xamante ni aajowul ko am basira di xam waaye tey jii mën nañu àdduna sépp xam nañ Cheikh Sidi Moukhtar Cheikh Mouhamadou Moustapha fa se fa way juróom wu tedd wa tàmbalee woon di fi jëlee ay jullit. ñi doon murit ñi doonoon di leen yóbbu fële ca màkkatal mu karram mu tënku ci ndigal ñëwaat tegaat foofu tànkam mu doon beneen jàngat boo xamante ni du ñàkk ngeen am ko ci bu baax a baax a baax. waaw loolu njàngat mu gàtt la rek ndax lu waay gàtt gàtt yi arab yi dañuy faral di wax ne euh, al waladu juzun min al abi doom joo gis lenn la ci baayam ci cër waaye nag waxaat nañ ne siru minal abi doom mooy sirul baayam kon moom mi mooy siru tey jii Serigne Bara mooy siru euh, sëñ Sidi Mokhtar jërëjëf.